te ànd boobu kenn mënuma cee delloo gannaaw ak ku di doon nag ndax ànd bu sincère la ànd bu dëggu la ànd boo xam ne dañuy séddaliyaat ànd comme moom ni ko waxee woon léegi kon looloo tax man ma choisir aussi président de la république parce que xam naa ko bu baax xamante nañ bu baax jaar nañ fu bari ci politique ak ci teraanga sax looloo tax nag moo ne président de la république ambition bi am ci programme PSE moom rek laa war a mën a àndat jàppale ko ci bépp combat bu mu a jël tey ak ëllëg ak gannaaw ëllëg. waaye suma xol. moom xam na maa ngi àndoon ak moom. te loolu rek ci am solo. maa ngi leen di nuyu bu baax comme niñ ko xamee lii sëriñ bi wax léegi li ñu fi dajale tey mooy feddali kóllëre goo xam ne ay at yu yàgg la parce que wax naa léegi sama biir discours ma ne bi yàlla dogee mu nekk député maire Kaolack ànd nañ ma ak moom. ànd dimbalante ci biir Kaolack ànd jàppalante ci biir Kaolack durant mu yor commune bu Kaolack alors euh, maa moom suñu relation demoon na ba nga xam ne amul kenn koo xam ne da soxla ci moom dara te doo ñëw ci man wax ceeg man loolu moo nekkoon relation yi nekkoon ci man bi yàlla dogalee mu dem ba màndaa boobu jeex jeex mu génn dem waaye cofeel googu ak liggéey bi nga xam ne liggéeyoon nañ ko fii ci biir Kaolack nekkon na liggey bu reuy bu am solo bo xamne ne munta nax say alors bisu tay bu ñu ba xalaat moom itam comme ñu ko waxé légui bi ñu bisee mu tok jangat politique sain heure bu nekk ak la ci xew jangal na réew mi jangal na dëkk bi ñu nekk jangal na région bi ñu nekk muy kawla gannaaw ñu gis ne war nañu mëna fédéli feddaliwaat taxaw boole suñu force yi pour liggéey ci képar président Macky Sall lolu moy sababu dajé bi tay mu nekk loo xam ne li may wax wax naa léegi ne lu rëy la ci suñ coalition bi ñu nekk parce que ku xam député maire Khalifa Niass ak fi mu jaar ak combat yi mu def avant président Macky avant président Abdoulaye Wade di jël nguur la àndoon nag moom histoire loolu kenn mënu ko fàtte fii ci Kaolack mu def fi ay bés yu métti ci xeex pour loolu am ba président Abdoulaye Wade jël nguur mu liggéey ak moom ba bi bisab tey kooku kenn munut a wax Kaolack te doo ko tudd.

pour région bi mais ndam la également pour coalition bi nga xamné nek nañ ci muy ay tànk yenen yu bes yu deuguer yo xamné dana gëna tax coalition bi gëna gëna défar waat gëna taxawaat baax ci bir région de Kaolack mu nek lo xamné waxna légui ne El Ibrahim Niass mo nek sa wajur rek doyna seuk pour nga dox ci bir Kaolack rawati na nak lim fi def ak fi mu jaar ak fi mu yegg tay loolu motax ko daje bii ñu daje tey mu nek daje bu ñu neex lool. moo wax léegi tamit na daje boo xam ne daje bu neex président Macky sàll la parce que moom itam musul dañ benn bés di jàpp ne dafa gañe rek dafay daje ak waa këram wala ak njabootam déedéet képp koo xam ne sénégalais nga ci liggéey bii ñu nekk tey nga mën ci dara rek président Macky Sall mi ngi lay tàllal loxo di liggéey ak jéem liggéey ak yow ah ku bañ liggéeyoo nag loolu xam kenn mu tolluñ ci jamono ji ñuy wax ne da ñëw kaay liggéey far waaye moom naka jekki li mu gëm mooy bépp doomu réew mi ko xam gis na ne bo ñëwee am nga lo def ci xam-xam ci man-man ak lo mëna def da ubbil ubbil pour nga jéma a sa compétence qui motax le ñëw mu ñëw tay pour le président Macky Sall lu rëy la ci biir région bi mais lu rëy la également ci képp président Maxal. tay yaangi liggéey ci le président Macky Sall ci bëggal ko jamm ci sa intérêt xam nga président Macky Sall musul tëj buntu pour kenn kon ubbeeku gogou moo waral lii ñu dox tey ba yegg ci bisab tey bii fii ci na Baye